salaamaaleykum mbokku internet euh, ñi ngi ci ligne bi ak euh, ki nga xam ne rek mooy secrétaire général Jamra Mame Makhtar Gueye ci comme ni ngeen ko xamee rek euh, projet de loi bi nga xam ni dañ ko déposé woon foofu pour criminaliser li nga xam ne mooy homosexualité au Sénégal la ci mujj xam nañ ko dañ ko mujj rejeté Imam Makhtar ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen ginnaaw bi nga xamante ni ji lu nu mel démb euh, ñi nga xam ne ñooy euh, commission assemblée nationale bi nga xam ni jébbalal ngeen leen euh, projet bi dañ ko rejeté ban jàngat ngeen ci am. waaw ñoom day bi ñu yëkkati wax nekk article trois cent dix neuf aajootul ñu di ko joyanti ndax mat na aajootul ñu di ci soppi donte le sax virgule la daf ñu xaw a reeloo parce que laajul xam-xam bu rëy ci wàllu penal pour mën a une loi penal dafay évoluer <laughs> avec son temps mhm. loi penal dafa war a ànd ak jamono di dox masalan euh, viol siif jigéen mhm. loi bi fi nekkoon doyoon na sëkk aajoowul ñu di ci yokk virgule moo tax ñu doon def jëyu jooju ñu ngi leen daan yóbbu tribunal correctionnel wala flagrant délit waaye kenn réewul mbir ne viol siif jigéen jéggi ni dayoo egg niveau boo xam ne dootuñu siif jigéen yem ci waaye dañ lay siif rey la soxna si euh, Binta Camara yàlla na ko yàlla yërëm Tambacounda ba tey mu ngi ci xol yi di métti nga loola waraloon nag ñu daal di def la loi deux mille vingt zéro cinq du dix janvier deux mille vingt di criminaliser le viol moo tax violoo yi kenn du leen atte ci flagrant wala correctionnel ñu ngi leen di yóbbu chambre criminelle mhm. loi bi ci nekkoon di teg ay daan trafiquant de drogue yi doyoon na sax ajootu woon ñu di ci soppi virgule waaye trafic de drogue yéeg na niveau bu jéggi dayoo boo xam ne li mu kan na solo ci ay xale kenn xamul nu mu toll yokk na insécurité beeg rey yu ñaaw yeeg agression yi ndax loo moom ak loo moomul mhm. kenn xamul ñaata sëy na tas boole ci nag déstabiliser suñu économie ndax xaalis bu bon biñ ciy recycler léegi nag tax na ñu ne kon daal di ko joyanti Abdou Latif Gueye dugal benn proposition de loi mu di la loi 2007 31 du 30 novembre 2007 bi criminalisé léegi le délit de trafic de de drogue. Mhm. de drogue kenn du leen yóbbu correctionnel chambre criminelle lañ leen di yóbbu. Mhm. ngóor jigéen trois cent dix-neuf bii waa assemblée nationale bi ne ko doy na doyoon na sot euh, soppi euh, aajo woon ñu di ci soppi virgule. waaye kenn réeréeru mbir mi góor jigéen ñi dañuy rek envahir l' espace takk nañ juróom-ñeenti sëy publiquement sëy ak benn guddi gu tedd gu mel ni guddi mawlidul nabi fii ci école Ibrahima Diouf ak Kaolack euh, kenn mënu ko lim ba mu jeex bi ci gën a jéggi dayo nag mooy le vingt trois novembre deux mille vingt gardien bërëb bu tedd bi di grande mosquée nga xam ne suñu borom moo wax ci téeram bi ne wa anal masajida lillahi jàkk yi néegu yàlla la trois heures du matin garde yi fekk bett ñaari góor di génn ñuy sëy ci biir jàkk ji mhm. yooyu amul woon en mille neuf cent soixante six waa bi dëppootu dëppootul la jamono wax joyanti ko balaa nit ñi di jóg di xajal seen bopp rawatina ministre de la justice dëggal na jox na légitimité suñu position ndax góor jigéen yooyu ñu libéré woon ginnaaw jéye yi ñu defoon guddi gu tedd gu def ni guddi mawludu nabi di fa takk fukki sëy ak benn fii ci Kaolack le vingt cinq décembre deux mille quinze bañ ko laajee lu tax ñaari fan rek nga bàyyi leen dafa ne parce que article trois cent dix neuf tuddul benn yoon baatu homosexuel ak ak euh, homosexualité moo tax nag comme que lii ñu def état la waroon te état defu ko ñu daal di jël attache d'acte contre bi nga xam ne moo doon tappale ba nga xam ne fa la daan jaar di libéré góor jigéen góor jigéen ñi dafa jaar itam di tooñ te dara du leen ci fekk dañ ko dindi sànni fee dafa criminaliser le lesbianisme et la nécrophilie mu leer nañ na léegi bu loolu nag la jël nag nasaxal ko daa di nekkoon bërkaat yi démb depuis mille neuf cent soixante six doy na loolu war a nax sa yëpp jaaxle d' accord imaam ci loolu euh, acte contre nature boobu su fekkee ñoom dañoo dem ba maanaam def ñu ci citation direct boo xamante ni ji dinañ mën a préciser lii ak lii ak lii est que loolu tamit ça ne pose de problème waaw ñoom defuñu ci euh, euh, infraction yi waaw moo tax ñoom yi nga xam ni ñoom moom la ñu ndax góor jigéen ñi fa la ñuy jaar di tooñ te dara du leen ci fekk mhm. góor jigéen ñi takk nañ fukki sëy ak benn ba ñu laajee ci biir lu tax ñu bàyyi leen ne loi bi tudd leen ak contre nature la wax mhm. waaw loolu nag forox ndol la boobu la bëgg a moo tax bi yoon dañu liim infraction yi kon ñoom dañu jàpp dañu jàpp ni loolu ñuy def ñoom du acte contre nature mu ngoog loolu waxi daanu ci saret la mhm. alors kon nag léegi ñun euh, léegi dañuy delluwaat Euh, ci kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo ko suna woon euh, proposition de loi yi parce que ñoom ñëpp signé nañ ko euh, ndax réew mi réew kilifteef la fi na wax yow ni ñu ngi ci yoonu Touba après dañu dem Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille Omarienne ak Tivaouane voilà bu ñu waxtaanee ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo signal seen bopp ne criminalisation bi ànd nañ ci voilà dinañ leen wax ne nag la ngeen bureau assemblée désavoué na leen waaw ñu déglu leen nag ñoom ba xam ban digal la ñuy doxee bu boobaa nag ñu daal di dellu siwaat ci presse bi wax leen euh, jéego bu euh, prochain jéego ci suñu plan d'action bu boobaa ñu fësal ko incha allah ok euh, ci loolu on a remarqué que ci vote bi commission bi mu ngi ëmb lu tollook fukki député ak juróom ni ki démb fukk rek ñoo fa teewoon à l'exception ki nga xam ni mooy Cheikh Bara Mbacké Dolly nga xam ni moom rek moo ci contre ñi ci des yëpp neuf restants yëpp dañu kii ñi nga xam ni ay absence lañ nan ko mën a justifier yéen dañu daw daw xam nga ñun bi ñuy voté laal loi deux mille sept trente et un ah, bi amnistie te muy criminaliser trafic de drogue xam nga Moustapha Cissé Lo wax na bu dul benn yoon ñaari yoon am na ay député ak ay ministre ay trafiquant de drogue lañ bi ci am ay milliards nee na na ma procureur woo ba tey procureur woowu ko alors ñun am nañ ci firnde article la loi deux mille sept trente et un bi ñuy criminaliser trafic de drogue hmm. am na ñaari député tukkati yamba trafic de drogue parce que wolof dafa wax ne Mhm. waaw de toute façon daal euh, réew mi kenn moomu ko droit sàmm suñuy valeur mhm. ñoom itam am na nañu droit dérouler la tapis rouge au lobby góor jigéen waaye li wóor ba wér mooy dëkk bu tedd bi nga xam ne fii la Bamba tëdd Maodo Baye Niass Baye Laye incha allah kenn du fi daganal góor jigéen incha allah mhm. euh, ci loolu gannaaw ba nga xam ne réseau bi am na aussi euh, am ngeen beneen taxawaay bu ngeen bëgg taxawaat mooy delluwaat ci këru diine mais nag réew mi dafa am ay institution te lu ci jaar tamit lu kilifa yi wax wax day jaar assemblée nationale euh, am ngeen yaakaar ni ba tey su ngeen defee recours wala ngeen waat projet bi est-ce que yaakaar ngeen ni dina mos a jàll. waaw moo tax comme que euh, ñun dañuy wéy ci kilifteef euh, il faut que fi ñu déparé woon ñu delluwaat fa. Mm-hmm. parce que nit ki doo ko jiital ba noppi joxe bopp di rocc lem comme que sëñ Mountakha dafa signé ba pare def lettre d' boole ko ci. Mm-hmm. sëñ Babacar Sy Mansour xalif général de Tidiane. signé def lettre d'accompagnement boole ko ci mhm. kon nag kilifa yooyu rafetul ñoom ñuy dégg ñu ne Jamra ak Ligue des imams ak euh, rassemblement islamique maanaam daal sensibilisation ànd sàmm jikko yi mhm. léegi euh, yëkkati nañ jéego bu bees bi ci seen plan d'action ñoom ñu ko ñi di ko dégg ci rajo bi te mhm. jëkkeew ñu ci ñoom moo tax nag li gën a ëpp yar ak teggin mooy ñoom ñu jox leen la primeur mooy tournée bi tàmbali ñi tama la ma wax la ko Mhm. wala buñ fa jógee incha allah dinañ jàkkaarloog taskatu xabaar yi. d' accord kon xam naa ni ba balay booba rek ñu ñu taaxeerlu rek ngir leneen lu ci ruusandi. waaw amul benn problème. bu mhm. boobaa ñu def nii nga def nii rek. Mhm. ñu mën a eh, jokkoo rek sottante ci xalaat. ndax eh, Sénégal set taxawaay boobu la yàgg am. di gindi askan bi rek ci eh, thèmes yi nga xam ne soxal na askan bi incha allah waaye man rek mooy ñaan yàlla mu sàmmal ñu réew mi sàmmal ñu valeur yi. te dam ma loxo lu homosexuel yi mm-hmm. fexe ba toroxal Gabon ndax assemblée nationale bu Gabon le vingt six juin deux mille vingt daganal nañ ngóor jigéen Île Maurice ñoom am nañ fa ndam daganal nañu ngóor jigéen Cap Vert bi sees rek mm-hmm. am nañ fa ndam ndax daganal nañu ay ñun dañu am yàqin bu wér ne dëkk bu tedd gi nga xam ne fii la Bamba Maodo Baye Niass tëdd mm-hmm. ku bëgg toroxal Sénégal yaay torox incha allah am nga kàddu yooyu jébal député yi nga xam ni ñoom <laughs> maanaam dañoo dëddu mbir mi. waaw li ma leen di wax day di ko dénk di leen ko dénk di ko dénk suñu bopp. Mm-hmm. mooy ndombal tànk député ak xaalis bu jógee ci PGA. c'est le euh, parlementaire global te ONU nas ko. pour euh, jaarale pexem góor jigéen. ci assemblée nationale yi nga xam ne membre lañu ci PGA mm-hmm. loo leen fa mënti am itam ci ay teranga doo leen koy yóbbaale seen bàmmeel seen bàmmeel juróom-ñaari mètre percale kot ngeen fay yóbbaal seen jëf nañu bàyyi xel ne ëllëg Mhm. subhaanahu wa dina ñu jàkkaarlook moom te ku ci nekk di nga ko rendre compte ci say jëf boobu moo mat a bàyyi xel mhm. moo tax ñu ngi gërëm Ablaye donte dontele ci député benn bokk yaakaar yi la bokk daf leen wan ginnaaw yow ànd ak ñun ci xeex mhm. parce que nee na moom jiital ay valeuram moo prioritaire par rapport ak yi teraangay àdduna suñu borom nag gëmmul nelawul te bu ëllëgee incha allah lu waaye rendi rek ci sa loxo lay nàcc incha allah nañu bàyyi xel loolu nañu delloo ci seen xel te ñu ànd sàmm réew li nga xam ne mag ñu baax ñoo fële Touba Tiwaawan Njaasaan Cenaba Ñaseen ba dina bàyyi laayeen ndax ku ci nekk ci ñoom mhm. ba ngay laata wuy ñu sa borom jëf nga bàyyi fi wax nga bàyyi fi bind nga bàyyi fi ñun taalibe yi nag mënuñu leen fay bor ndax koo xam ne daf la jële ci lëndëm teg la ci yoonu leer bu siraatul saxiim mhm. koo xam ne moo la xamal xaala laahu yàlla nee na xaala rasulullah yonente bi oore ci jamaa ne da nga koy faye borom mënoo ko kon li ñu mën mooy lii ñuy def joxante loxo seqandono lu rafet yi ak valeurs yi rafet yi fi mag ñu baax ñi bàyyi mhm. sàmm ko aar ko ba ku ko bëgg a xajamal mbaa nga bëgg ci xëpp suuf ak koo mën a doon lobby homosexuel lobby franc-maçon mhm. ñu jàmmaarloo ak yow mu jaral ñu lu ne kon nag ñu ngi tendre la main aux députés nañu góorgóorlu def li Wilane def mhm. nañu góorgóorlu def li Cheikh Aliou Souaré def góorgóorlu def li Mamadou Lamine Diallo Cheikh Bamba Dièye Moustapha Guirassy yi def mhm. ndax ñooñu seen ëllëg la ñu jiital daal second plan teranga adduna yi nga xam ne fii lay yem mhm. yal na yàlla dàqal Sénégal seytaane yal na yàlla def jàmm ci réew mi mhm. te laqal ñu Sénégal fu yàq yegul wasalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf mu nekkoon euh, imam ma Makhtar Gueye secretaire général bu Jamra euh, ci euh, kàddu yi nga xam ne rek rotal na ko gannaaw nag ba ñu gàntalee li nga xam ne rek mooy seen projet de loi boo nga xam ni dañ ko introduire woon au niveau de l' assemblée ñu toppal xibaar yi ba xam fan la ñu ji comme ni mu ko waxee rek dinañ fas yéene jàkkaarloog taskati xibaar yi ci jamono yu néew rek ngir gën a leeral askan yi fan lañ ci toll kon mbokk yi ñu ngi leen sant di gërëm